billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin annaasiri alhaadi ila siraati illahi almustaqim wa ala alihi wa asxaabihi wa dhurriyatihi wa man ittabiahum bi hudaahum ila yawmi ddin mbokki jullit yi nga xam ne ñu ngi topp suñu jataay fu ñu mën a toll ci seen émission dakar midi point net bi ñu leen baaxoo defal ci seen émission shukran weeru koor wu jot ñu ngi ndokkale ñëpp di ñaan yàlla nawaafil yeeg sarax yeeg njàngum alxuraan meeg doxu bokk geeg lépp yàlla bu mu niil yàlla na ci yàlla kese diig di ko ñaanal sunu bopp di ko ñaanal bépp jullit yàlla nañu ko yàlla defal euh, di ñëw ak yéen ci suñu tomb tey jëmale ko ci tooñ muy baat bu diis te doy waar yàlla tere ko ci boppam xaraamal ko ci boppam xaraamal ko ci suñu diggante euh, te bokk na ci biñ gën a néewal doole tey loolu tooñ bokk na ci mbokk yi te yàllaa ko njëkk a tere ndax yàlla wax na ci alquran baada audu billahi min alcheytaan arrajim ne wa ma rabbuka bi dallamin lil abid man yàlla seen borom duma tooñ sama benn jaam nu nit mën a mel ak loo mën a xew rek dogal bu yàlla programme la ci yow mais du tooñ ndax yàlla dañuy wax ne àdduna beeg feneen fudul àddina bi lu mu fi laal rek moo ko moom ndax amul dara lu fi indi sa bopp lépp lu fi ñëw yàlla la fi indi te ku moom sa alal lala la neex ak na la neex rek nga cee jëfandikoo euh, te mbokk yi tooñ wolof day wax baat bi waaye tooñ ñaari yëf kepp la tooñ mooy nit ku am alalam nga gannaawu ko ca def ca lu ko neexul kooku tooñ lañ koy tudde wa illaa nit ki nga ëpp ko doole fekk ko ca alalam ëpp ko doole def ci lu ko neexul kooku tooñ lañ koy tudde te yàlla na ñaar yooyu yépp benn dalu ko ci lu mu fi laal ci kaw dénd bi moom moo ko moom moo tax wax na ci xadiisul qudsi ne yaa cibaadi inni xaramtu zulma ala nafsi fa jacaltuhu xaraaman baynakum falaa tudaalamu yéen sama jaam yi man seen borom bu tedd bi day xaraamal naa ci sama bopp tooñ kon def naa ko mu xaram ci seen diggante bu leen di tooñante yonent bi wax na ci gravité tooñ ne na ngeen ragal ñaanu kunu tooñ doon tele yéeféer la ittaqu daawatal mazlumi laysa lahu wa bayna allahi xijaabun ñaanu ku ñu tooñ digganteem ak yàlla amul paravent dara doxu fi soo tooñee nit bu meree bu ñaanee yàlla lum ñaan yàlla sottul loola parce que yàlla da lay bàyyeek moom moo tax nañu koy wattandiku tam parce que lu garaaw la rawatina tooñante ci sa digganteek sa dëkkandoo dëkk nit ki ameel ko àq xam ne mënu la ko wax dëkk nit ki ameel ko coono boo xam ne mënu la ko wax te yu ne sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon wallahi laa yuminu wallahi laa yuminu qiila man yaa rasulallah qaala man laa yuminu jaaruhu bawaa'iquhu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waatoon ni kii de gëmul yàlla ni giñ naa ci yàlla kii de gëmul yàlla giñ naa ci yàlla kii de gëmul yàlla ñu ne ko yow mi yàlla yónni kan moo gëmul yàlla mu ne koo xam ne say dëkkandoo mënuñoo mucc ci sa mer waaye mënuñoo mucc ci sa kontante te muy lu bari euh, boo ñëwee ci suñu réew mi ñu nekk di dund ñun bokk na ci suñu aada tey programme ngay am ci sa buntu kër baas tali bi lijjantiwoo woo ko feebar lijjantiwoo woo ko am soxla lijjantiwoo woo ko war a liggéey lijjanti woo ko nekk ci jafe-jafe léeg-léeg sax nga tuddee ko utum yàlla te fekk na wallaahi amuloo ca yàlla ay duma kese nga cay jële doonte le njàngam alquran la sax te ngay déranger jullit bu feebar mbokk yi sóoraaleel sa nawleb jullit boobu aq ji nga ko ameel léeg-léeg nga dugg ci kër gis ko yar ay ganaar xet gi di déranger ay dëkkandoom waaye yoonam nekku ci te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee woon na ku tabax benn miir mu tiim sa dëkkandoo fatt ko ngelaw li yowmal qiyaam bala ngaa jàll danañu régler loola kon sew-sew yu bari na te daana wax ne maa daala yusini jibrilu bil jaar xatta danantu annahu sa yuwaarisu nii yonent bi sallallahu alayhi wa nee na sayyidina jibril musul dañ di ma dénk sama dëkkandoo ba ma defe ne sax man yonent bi su ma fi jógee dëkkandoo bokk na ci ñi nga xam ne danañu ma dono nañu sóoraale loolu mbokk yi ah, léegi nag li xew mooy programme ngay def baa nga am ngénte fatt koñ bépp kenn du dégg nga am lu la naqari sippi ko waa koñ bépp kenn du dégg lu la naqari bala nga accuser kenn say dëkkandoo ngay njëkk a te mbokk yi ku say dëkkandoo amul ci yow confiance mbokk yi sa dara baaxagul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn waay bu musa ñëw ne ko dama bëggoon nga tegtal mu man naka laa mel yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko dellul ci say bu buñ seedee ci yow ne ku baax nga de ko baax nga waaye bu ñu seedee ne ko safaanu nga de ku safaanu nga te mbokk yi euh, aqi dëkkandoo aqi dëkkandoo diis na yonent bi nee woon na la an yazni rajulu bi asri nisawaatin aysaruhunna min an yazni bi imraati jaarihi la an yasriqa rajulu bi asri abyaatin euh, aysaru min an yasriqa fi bayti jaarihi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neewoon na nga njaaloo ak fukki jigéen yoo xam ne xamu leen ana man yow moo gën a sedd fuuf nga njaaloo ak sa jigéen joo xam ne da ngeen dëkkaale parce que lañ cay bañ gàkk-gàkk ba cay soso après yonent bi neewoon na it nga sàcc ci fukki kër yoo xam ne xamuñu la xamu leen moo gën a sedd fuuf nga sàcc ci sa kër dëkkandoo kon dëkkandoo foor na mbokk yi yal nañu yàlla sàmmloo ak dëkkandoo yal nañu yàlla defal dégg ak topp wa ma dalika ala allahi bi aziz wassalaamu alayna wa alaykum walhamdulillahi rabbil alamina jërë ngeen jëf bismillah